mbokki internet yi ñu ngi leen di nuyu di leen dalal ci biir Limametti di leen remercier ci topp bu ngeen ñuy topp comme à chaque fois ni ñu ñëwee yi a fës di koy dooree ki nga xamante ne moo di Ndella Madior ginnaaw bu mu lu mel ni xamee ki nga xamante ne moo di Sada Kane moom Ndella Madior nag daal di nay génnaat daal di taxaw tikk ne mu ngi jéggalu ki nga xamante ne moo di Sada ginnaaw wax ji ñaaw ji mu ko fi waxoon waaye nag ba tey xamuñu la moo tax moom Ndella Madior daal di génnaat daal di jéggalu ki nga xamante ne moo di Sada Kane rumeur yi nag daal dinay bëri ba ci nga xamante ne moo di ndey si di feccekatu Wally Seck ba mu set wecc ne digganteem ak Amady Badiane leneen ci daal dinay xamal askan wi ne Amady Badiane ab papa la ci moom la ci moom sources yooyu nag ñu ngi ko sukkandikoo ci suñu mbokk yi waa Dakar Buzz nga xamante ne moo di Pape Thialis Faye ab promoteur ci làmb ji moom bu sukkandikoo ci information yu jot a am ci suñu mbokk l'observateur yi moom daa doo jabaram ba instant bi ni yoon teg na ko loxo suba ci àjjuma ji nag lay daal di taxaw fële ci kanamu procureur ngir ñu àtte ko ñun waa Limametti nag dinañ leen ko toppal ba indi leen ci information yu gën a leer xibaar yi ñu jeexalee ko ci ki nga xamante ne moo di Cheikhou Kouyaté nekk nekk joueur fële ci équipe nationale bu moom Cheikhou Kouyaté nag gis nañ ko ci benn vidéo mu toog ak ay jabaram kenn ci jabaram yi nag di fecc di wane ko moom mooy aw buuru këram leen leen te tey seen revue de presse mu nekk xibaar yi gën a fës bu leen fàtte nag abonné suñu chaîne youtube limametti point com ngeen bisaale ko bu leen di permettre ngeen mën a am information fi ngeen mënti toll di leen jox dig daje beneen yoon ci biir limametti point com